ñoo ànd déggoo ci fal délégation bi euh, li ci tegu mooy euh, def naa ñaari at ci parlement CEDEAO ñu féddilaat sama kóllute seen kóllute ci man pour ñeenti at encore ci biir loolu yàlla na yàlla dimbali ñu bañ mottali ko ba teg yi leneen euh, mënuma ñàkk gërëm nag président Moustapha Sello nga xam ne ñoo àndoon nekk fa président Sénégal ak parlement Sénégal wooluñu ñu ànd fa ak ku mel ni Oulimata Guiro def fa liggéey bu nous, pays yi Le CDAO le accord nañu nous. président Moustapha Cissé Lo ci parlement CEDEAO nous contrôle parlementaire def nañu évaluation des politiques publiques def médiation def nañu lépp nous, renforcement des prérogatives du parlement dafay Nous CEDEAO yëngu nañ ci wàllu dem le pour nous yomb nous. tax bi nga ne mu te mënatu faa nekkaat euh, di toppee fi mu jëm yàlla na fa yiw yàlla jublu yàlla na ko yàlla joxaat yeneen occasion mu liggéeyal Sénégal Oulimata Guiro itam bokk ci parti PUR jigéen la joo xam ne nii ku xeriñ la ku sawar la waaye ku loyal la enfin maa ngi daaneel di wax ne délégation bii ñu fal muy six parlementaires yi kii nar a nekk suñu chef délégation mooy l'honorable député Aimé Assine maa ngi wax ne sukkandiku ci waat bi nga xam ne moom la ñuy waat bu nekkee parlementaire de la CEDEAO sama te du ko manqué sama disponibilité du ko manqué métti na lu jafe la ndax doo toog da ngay tukki rek te da ngay dem ci situation yoo xam ne nii ku xool li xew Mali xool li xew li ngay dégg ci Guinée euh, Burkina Faso xool li xew ci Niger xool li xew Nigéria xool li nga xam ne ni ñu ngi koy dégg ci biir Gambie wala ñu koy dégg ci biir Guinée Conakry wala ñu koy dégg ci biir Guinée Bissau war ak nga xam ne espace parlementaire CEDEAO bi nii bu yëngu-yëngu waaye ñu ngi ñaan yàlla ànd ak ndimbalal suñu borom ak ñaani wayjur yeeg kilifay réew mi ba nga xam ne fu ñu mënti dem du ñu fa yàq dañuy defar loolu daal mooy li nga xam ne nii moom laa bëgg a wax di wax ne ñun bu ñu génnee Sénégal di représenté askanu Sénégal lépp loo xam ne ni daf ñuy féewale dañ koy moytu fexe ba fu ñu dem raaya Sénégal siggi yëkkati ko waaye itam danañu jàpp ne fukki réew ak juróom la ñuy représenté